ma gis nga Malick soo gisee tey ñu am jafe-jafe xol yi yàlla ci nekkul gëm yàlla boo koy for ci Sénégal da ngay for lu bari parce que yàlla dañ koy jaamoo tiitar te yàlla dañ ko war a jaamoo yàqinu ngëm ndax yàlla ku ko gëm rek la bëgg te yàlla boo ko gëmee dafay nekk sa serviteur ba ilaa yomal xiyaam lu yàlla moo lay wutal serviteur ndax nee na yéen aji ngëm yi man maay seen serviteur ndax sama diine ji maa koy saytul sama bopp ba néeg bi yàlla war a jëm seytaane dafa dañ dañ dafa njëkk seeni borom ndax lu tax mooy xol xol war naa dëx ñëpp lu yàlla yàlla xol bu yàlla fees nag day regg àdduna regg àdduna mooy lekk ak naan mbiskit bii ngay gis sax ak yàpp la yamale ndox mu sedd ak bu tàng la yamale néegu ñax ak taaxi kaw la yamale ndax bu boobaa yàlla day def ci moom rek xol ba sam-sam day tëgg lu dal waaye tey jii nit ñi dañoo jaamoo yàlla mbubb jaamoo yàlla daraja jaamoo yàlla tubay te xamuñu ni sinnatun wala nawm lahu ma fi samawati ma fi al ard yàlla du aji gëmmint du aji jeex bay nelaw bon ñu war a xamante ni lii fi ne yàlla la waaye doomu adama bi yàlla daf ko mooñaale ak ñaar seytaane bi ñuy wax yàlla du ko mooñaale doomu adama ndax yàlla dafa bind doomu adama ci ñaari pàcc doomu adama dafa am wàllu ndey am wàllu baay doomu adama dafa am day joor am càmmoñ ci diggante day joor ak càmmoñ bii damay wax ni sage sagesse bi salaud la esprit sage bi da ngay fexe ba mu convaincre sa esprit salaud su sa esprit sage convaincre sa esprit salaud soo ëllëgee kenn du la yey te foo yëkkatee kàddu dana la déglu ndax kàddu yàlla koy déglu moo koy génne moo koy déglu ñi koy dégg yàlla leen koy sol ñi koy jëfee yàlla moo koy sol nit ñi xamatuñu loolu te war ma yàlla koy jox doomu adama yàlla ku mu war maal gàncax mën naa wàcc sa kaw waaye du la muur ndax war may yàlla nga yor Seydina Muhammad ma yàlla war maaloon naaj daaw ko tiim te fu mu musaan taxaw muy kenn melokaanam wa benn la woon bon esprit sage am ba dafa convaincre yi esprit yëpp te yàlla moom sax deful ci moom esprit boo xamante ni da koy jaaxal ndax Muhammad dañ ko tàggat tàggat ko tàggat ko tàggat ko ba mu nekk référence bi nga xamante ni amul lenn amul koy woo nag ci àdduna mu yam Mouhamad ci weewu tànk amul yàlla bind ko malikul aqul mu bind ko yàlla bindal nit ñi nag jaamutuñu yàlla xamuñu rasulillahi lu ñu xam mais nit sax bala ngaa wuti jàmbur bi nga wuti sa baay ndax wali waalidayhi ihsaana te lu am solo la ndax nit mu ngi juum ci jël jëmm di ko dendaleeg rasulillahi waxatuma laa yàlla dama ne yàlla bu amee weewu tànk Muhammad yamul yàlla ci wewu tànk waaye Muhammad kenn yamu ko ci weewu tànk ndax yàlla malikul aqul mu bind la ko def min nga bind Muhammad keneen ku mu bind doo sama doo am bàkkaar ndax yàlla topp ko lu jiitu topp ko lu mujj ak lu mu am ak kullu lu mu am looloo waral digle ci ñuy julli ci moom ndax yàlla dafa julli ci moom looloo waral yàlla digle ñu dundal ko kon damay wax ni yaqinu jigéen am na loo xamante ni jigéen am na loo xamante ni góor amul ndax ñuy woddee Muhammad yàlla di fay noonu la jëlee jigéen jébbal ko kilifa ba pare ni kilifa gi war ma yi may sàkku ci yow moom ngay def ci moom bon jigéen bu góorloo moom lépp ndax yonent ci nee la umm ka yaay daaraan waaye tey dafa mel ni suñuy jigéen dañoo mel ni ay bàyyi ma ndax amuñu kilifa te kilifa dafa am solo lool te yàlla bu bindee kilifa artu moo ko tax a jóg waaye kilifa yàlla bind ko bu muy wàccee safaan kilifa du wàccee dañoo nekk nag axiru zaman jëfi saay saay moom ëpp mooy lumière bi nga xamante ni moom la gis nuuru seytaan mooy leeru seytaan nuurullaahi nag am na leeru yàlla nuurullaahi bu duggee ci nuuru seytaan da koy lekk moo tax ay ko yi ngay dégg yépp loolu la Cheikh nay wax naan kullu bidaay yowmal waasi bachar bépp bidaa bu ne ci kasara lay dee nit war naa xam yàlla war naa delloo boppam ci dëgg moo tax man sama ñaan yëpp dama naan yàlla nu yàlla delloo suñuy sago am na solo lool ñu ñaan yàlla mu delloo ñu suñuy sago ndax amuñu ay kilifa